asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi gannaaw ba nu sante yàlla julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fas yéene dellu seek yéen ci sunu jataayu xam-xam bi ñuy tuddee Shamsul Bilaad di ci ànd ak yéen bis bu nekk ci waxtu wi ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Oustaz Gora Diop fii ci seen rajo Rewmi FM 97.5 su ko defee mbokk yi di leen euh, baalu xaq di leen baalu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala sunu kàddu fekk leen ci jàmm ak salaam xam naa rek ñu bëgg indi benn leeral bu gàtt rek ci mbokk yi nga xam ni wax dëgg yàlla jamono yi yëpp ñu ngi ñuy soññ di ñu ñaan pour ñu dellusi ci wàllu làpp indi ci ay leeral ndax dañ koy soxla wax dëgg yàlla te it làpp mun nañu wax ni ci la lépp aju ndax boo góor góorloo balaabal sa yaram bu yaram wi dëkkee laab rekk mooy amatul dara luy tilim tilim walla taq-taq day continuer balaabal laabal sa jikko moo tax laabu yaram ak laabu yére ak laabu place bi ngay nekk dafa am solo lool mbokk yi ndax loolu su amee rek jikko ji day laab waaye tamit euh, sa cër yëpp dañuy dëppoo ak sharia dañuy dëppoo ak jëf yu baax moo tax bu ñu waxee laab nag dafa am ay xaaj yu baree bari yu mu làmb ndax mun nañu ni ki amee ba nga xam ni soxnaam la jaxasool walla nga xam ne boroom këram la jaxasool walla mu dem ci toilette yi ba jóge fa walla mu tuur ndox bu ci nekk rekk dafa am façon bu muy laabe yooyu yëpp nag danañ ci ñëw waaye ñoom dafa am bu nekk ci digg bi ndax bu ñu waxee janaa ba sangu set moo koy yëkkati moo yëkkati toj ma maanaam moo koy dindi muy sangu farata bu fekkente ni dangaa tuur ndox dangay jàpp pour mën a am laab bu fekkee amoo ndox moo jàppe nga soog a mën a tiim waaye léegi li ñu njëkke mooy njàpp mbokk yi ndax njàpp dafa am njariñ yu rëy rëy rëy yu ci nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon wax ne dee leen laabal seen yaram fu ngeen mën a toll ñu gis itam ni alquranul karim mawlana subhanahu wa taala mi ngi ñu ko ciy digal dañuy wax ni wa in kuntum junuban fattaharu waaw su ngeen amatee janaaba rek nangeen ngeen waaye gis nga ci biir laab moom yàlla subhanahu wa taala mu tënk ci njàpp tënk bu gàtt gàtt waaw daal di ne faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsaxu bi ruusikum wa arjulakum ilal kaabayni <laughs> waaw yàlla nee na su ngeen jógeetee ci palaasu faju aajo ba pare na ngeen jàpp mu mel dañ ko ne jàpp mi mooy lan mu ne nangeen raxas seen xarkanam kanam ah, na ngeen raxas seen ñaari loxo yi ba ca conco ya muy faxsilu wujuhakum mooy raxas leen seen xarkanam kanam wa aydiyakum ak seen loxo yi ilal maraafiqi ba ca conco ya wamsaxu ngeen masa bi ruusikum ci seen bopp yi wa arjulakum ak seen tànk yi ilal ni ba ca ñaari doj ya alxuraan noonu la jàngalee njàpp léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ciy yokk booy jàpp nga raxas sa loxo ba ci tikki jare yi ñetti yoon gàllax ñetti yoon sarax ñetti yoon soo ko egsi ci sëlmu moo tax sëlmu ginnaaw yéene bi ngay yéene ci njàppali sëlmu mooy première farata bi ngay njëkk jot ci njàpp ginnaaw yéene yéene nag moo jiitu te yéene boobu farata la waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam yi bi ñuy tashreex xadis bi dañu wax ne comme ndox yi nga xam ni moom nga war a jàppee dañu la wax ne la ndox mi cafka bi warut a changé xet gi warut a changé melokaanu ndox mi waruta a changé ñu ni moo tax sallallahu alayhi wa dugal ko ci ndax boo raxasee say loxo ba ci tikki jare yi su ndox mi amee couleur dinga ko xam su baaxul nga dem changé ji kuuti beneen ndox soo raxasee say loxo xam ni couleur bi baax na nga continuer gàllaxndiku dinga xam ndax ndox mi saf na leneen lu ci bokkul wala déet ndax bu safee leneen day yàq ndox bi moo tax kon ñu ne mu dugal ci galax moom sallallahu alayhi wa sallam ngir nga xam ndox mi saf na leneen wala safu ko su état boobu jàllee tamit nga xam ni saful dara mën na jàpp nga yëgsi ci saraxndiku mooy jël ndox mi sarax sa bakkan dugal ko ci bakkan bi ñu ne foofu tamit li ci sallallahu alayhi jublu mooy boo amee xet goo xamante ni mi ngi ci ci ndox mi te bokk ci comme xetu parfum wala yu mel noonu dinga ko xam su ko defee nga mën koo moytu wuti beneen ndox su fekkente ni nag ndox mi xeeñul dara lu mën a yàq ndox mi léegi nag macha allah nag nga daal di mën a yegg ci raxas sa xar kanam te mooy sëlmu nga xam ni foofu mooy farata bi jiitu ci jëf ji waaw su ko defee itam njàpp nekk lu am solo loo xam ne téere yu bare bari bind nañ ko bokk na ci yi nga xam ne sirru la ci sirru tariqa Cheikh na Tijaani radiyallahu taala anhu bokk na ci yi nga xam ni xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu wér moo ko wane bokk na ci yeneen borom xam-xam yi am nañu ci bind ku mel ni imaam Shafii bind na ci imaam Abu Hanbal na ci imaam Abu Hanifata na ci imaam Shafii bind na ci imaam Malik aussi wax na ci lu yaatoo yaatu ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci ngëram wax ni njàpp daal gàllaaj la goo xam ne yàlla moo ko may jullit bi maanaam jullit lépp lu muy def moo xam jaamu yàlla la moo mu nekk ci période boo xam ne jaamuwul yàlla sax xataa ba ci bëgg a tëdd nelaw da nga war a jàpp ñu wax ni soo jàppee ci li ëpp ci borom xam-xam yi la ñu wax nee nañ yàlla daf lay boole ak malaayika boo xam ne daf lay garde ba dara du la mën a yàqal moo tax ñuy wax ne soo jàppee sooy génn sa kër tey war a wuti dépense wala ngay tukki jàppal ba sell soo génnee incha allahu fi nga jógee sa kër ba fa nga jëm doo am benn ndox dañuy wax ne njàppale moo lay aar waaye ñu bëri ci borom xam-xam yi nee nañu njàpp moom nga jàpp dafay am malaayka buy ànd ak yow di la garder di la surveiller ba dara du la mën a yàqal incha allah ñu ni itam su fekkee da nga génn dem di wuti dépense nga jàpp ba sell ñaan yàlla soo ko génn sa kër yàlla mën na laa suturaal ba li ngay wuti di nga ko am waaye tamit jàpp ñu ne soo góor góorloo ba jàpp génn yi tamit ak foo bu doon xare nga jëm ñu ne dañoo takk xare dañuy xeexal lislaam nga jàpp ba sell fab sa jaas yi dem ca xare ba di nekk ca xare ba ba mu jeex te incha allahu njàpp loolu fekk yaa ngi ànd ak moom sa bakkan du rot ñu ne itam su fekkente ne dangay tëdd nga jàpp ba sell te daale njàpp moomu ah wax nañu ne seytaane du la jege du la yàqal deegu bette muy deewu mbetteel du la dal ci kàttanu yàlla ak nibalam waaye tamit lépp loo xam ni ak rekkeeku ngëm la te mooy murtat yooyu yëpp du la du la gaar incha allah waaye itam ñu ne soo yoree njàpp bu fekkoonte ni dangay dox ci mbedd mi wala ci àll bi dajeek gaynde wala nga dajeeg bukki wala nga dajeeg segg wala nga dajeeg euh, ni ñu koy tuddee tudd ma laa mbaay muy muy muy jaani ñàngoor moom daal ala kulli xaal wala nag wu rëcc sax di mbëkke nga dajeeg moom yor njàpp feneen lay jublu waaye du jublu ci yow waaw ñu ni tamit soo yoree njàpp ngi génn nit ñi daw ñu ne lan la ñu ne yamb yi ñoo génne ca seen kër ya di songu nit ñi lu ñu bari bari bari yow mi yore njàpp duñu la laal waaye ñu ne itam soo yoree njàpp jaar ci yoon wi guddi di ñibbi yaa xam koo mënti dajal alal joo manti yor li ñuy tuddee addu kalpe muy agresseur ñooñu ñëpp yàlla dina la musal ci ñoom ba duñu dajeeg yow bay di di nangu li nga yor waaye ñu ne boo yoree njàpp itam jamono bi nga yore njàpp yi yaa xam da ngaa tëdd di nelaw wala da nekk ci sa kër wala da nekk ci sa liggéeykaay waaye yaa ngi yor njàpp même bu nit demoon di la liggéey ka koy liggéeyal liggéey ba maanaam sëriñ tariyaax ba nga xam mu ñooy liggéey nit ñi sëriñ ba lu mu bari bëri xam-xam lu mu la mënti def du la jàpp incha allah ñu ni itam soo yoree njàpp bu fekkente ni dangay ngay ànd ak sa soxna yow góor gi nga jàpp ba sell soo ci àndeek moom njaboot bu ca sosoo doomu lislaam lay doom yokk ca nag ñu wax ni boo ma nee ñaan gii ma lay bëgg a wax boo àndeek sa soxna ba nga xam ni sa ndoxu góor mi ngi génn di dem ci moom nga jàng ñaan gi gudd na waaye mën naa leen cee jox bu gàtt rek loo xam ne boo ko xee doy na muy allahumma jannibni shaytaana wa jannibi shaytaana mimma razaqtana waaw loolu rek boo ci baax na allahumma jannibni shaytaan wa jannibi shaytaana mimma razaqtana loolu lu muy tekki mbokk yi moo yow yàlla yàlla na nga nu fegal seytaane fegal ñu koy tamit moom seytaane ba boo ñu mayee wërsëg maanaam boo ñu mayee doom ci suñu sëy bii maag sama soxna si seytaane du ko mën a yàq ndax dañuy wax ne ak seytaanu yajri fil insaan majira dammi waaw dañuy wax ni seytaane day daw ci biir doomu aadama comme ni deret di dawee ci biir doomu aadama moo tax dafa capable moom seytaan waaye su fekkente ne yore nga njàpp même boo mënul ñaan gi sax nga jàpp ba sell war a ànd ak sa soxna moom tam mu jàpp ba sell incha allahu taala lu ngeen ci am rek ci njaboot seytaane du ko mënal dara tey tamit dina nekk doomu lislaam nekk doomu leer ñu wax ni itam soo yoree njàpp lépp loo xam ne xeetu jàmm yàlla la ak lu mu am am am am doole muy tur yàlla wu mën a doon sa yaram dina résister pour mën koo dékku ba doo soo bëggoon liggéey tey turu yàlla wu mu doon lu mu diis diis yaram yi dina ko àttan ndax njàpp loolu mooy tax xam nga nag ci turu yàlla yi dañoo am ay décret dañoo am ay yu mag a mag a mag yoo xam ni macha allah dañuy diis waaw yooyu nag du waxu fii moom <laughs> ndax sër lañ ko tuddee waaw sër lañ ko tuddee secret lañ ko tuddee waaye daal ma wax la wax la rek bu soo yoree njàpp lu la neex mën nga koo liggéey ci turu yàlla neex mën nga ko liggéey ci salaatu ala nabi lu la neex mën nga koo liggéey ci euh, euh, lépp luy xam-xam rek te jàmm ak salaam rek incha allahu moom nga cay jële mbokk yi njàpp nekk na loo xam ni dafa am solo parce même su fekkee da dem bay tëdd nga jàpp ba sell na ci fanaanoo ko pour sellal sa sa yaram gis nga jàpp loolu dañ lay wax ne lenn rek moo ko mën a toj mooy nga ànd ak sa soxna waaye boo xasee nelaw même boo ngelawalee wala nga jóg tuur ndox ci guddi gi wala nga dem toilette ci guddi gi njàpp loolu sax doo ko baamu ndax loolu toju ko ànd ak sa soxna rek moo koy mën a toj waaye nag soo fanaanoog moom ba fajar soo bëggee julli nag da ngay salaat njàpp li pour wax la ni la njàpp boo ko xasee yor soxlaatoo paaka booy yor paaka poignard pour ni da ngay défendre sa bopp soo xasee yore njàpp soxlaatoo pistolet boo bëgg a yor pour ni da ngay défendre sa bopp boo xasee yor njàpp soxlaatoo jaasi jooy yore pour ni da ngay sa bopp waaye nag yooyu yëpp bu ñu koy wax ki nekk ci njub moo tax ñuy wax waaye kii dem jàpp ba sell di day sàcc yi nagi jàmbur wala xari jàmbur boobu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla du ko cautionné waaye njàpp daal arme la njàpp défense la njàpp protection la gis nga ba ci feebar bu mu ci manti doon boo yoree njàpp du la laal waaw wallaahi wal kitaab yi waaw njàpp li ci nekk dafa bari njàpp li ci nekk dafa yaatu te itam njàpp dafay def leer ci ki nga xam ni mooy jàpp njàpp mi day def leer ci yow lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko waxee set gi muy def ci yow leeraay bi muy def ci yow ak taar bi muy def ci yow moom jàpp ñu ne ko naka la loolu mën a nekkee mu ne kuy jàpp tër tilim du des ci moom mu ne su fekkonte ni kenn ci yéen yàlla da koo may mu benn basin walla benn pisin ci biir këram walla ci buntu këram te piscine bi dina ci sóobu juróomi yoon par jour dina sangu juróomi yoon ci piscine bi par jour mu ne ndax kooku su génnee ci juróomi yoon yooyu ndax tilim dina desati ci yaram wi ñu ne ko déedéet mu ne kiy jàpp noonu la mel parce que war nga jàpp juróomi yoon ci bis bi mu ne kon yàlla noonu lay setale say bàkkaar ni muy setale sa yaram doo am benn bàkkaar moo tax kuy jàpp doo am bàkkaar moo tax ku yor njàpp soo dajeeg moom ni ko ñaanal ma su su la ñaanalee yàlla dafa koy nangu daf koy nangu waaye tamit njàpp dafa nekk loo xam ne soo ko deewaalee kenn du la mbugal mbugalu mbàmmeel waaw maanaam waa ji jàpp ba sell sol yëram génn wala mu tëdd ci këram moo xam far yàlla moom ko te fekk mi nga ànd ak njàppali nga xam dogal yàlla lay doon su boobaa kenn du ko mbugal ci bàmmeelam waaw te it yàlla daf koy yërëm waaw ñu gis itam bokk na ci yu nu digle ci njàpp bu fekkoon da ngay tukki bëgg a jël avion waaw ñu naan la bii mooy léemaay bi wala nga jël train bi ñu naan la bii mooy léemaay bi wala oto bi maa ne li ci gën a gaaw yëpp mooy amal njàpp rek yow daal jàppal ba sell dugg ci sa avion wala nga dugg ci sa oto wala ci train bi insha rabbul izzati di nga dem ba yegg fa nga jëm te doo am benn problème fekk yaa ngi ànd ak njàpp loolu waaw waaye tamit mbokk yi njàpp nekk loo xam ne daf lay seede ëllëg yawmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ëllëgee yawmal qiyaam bu ñuy dekki <laughs> nee na ñi doon jàpp ci xeetam fi nga koy xàmmee mooy seen cëri njàpp yi day weex waaw nee na fi ñu doon raxas seen loxo ba ci conco da ngay day weex tàll mel ni jamaa lañ leen ci solal seen tànk yi fi ñu ko doon raxase bay si ci kostan yi romb ko tuuti day mel ni ay dàllu jamaa lañ leen solal waaw nee na daal li ñuy tudde xurril muajjiliin waaw waaw xurril muajjiliin day mel ni daal dañ leen a gis nga xurril muajjiliin boo ko bëggee dégg mi ngi mel ni fas yi nga xam ni seen tànk yi day weex ñu ñëw fuddal leen ba ci kaw tànk bi tuuti yeel bi fasu kursi yi nag ñoo daan mel noonu ak fas yi ñu daan war di ñu ko daan war di di leen fecc look yooyu nee na loolu su ëllëgee bu nu dekkee yomal xiyaam Seydina Muhammad ne ne xeetam fi nga leen di xàmmee ci yeneen xeet yi mooy seen béréb bi njàpp yi day weex tàll su ko defee di leer xati nag di mel xat fu ñu leen séen daldi di ni ah ñëla de ñooy xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax seen njàpp yi mbokk yi kon xam ngeen ni jàpp am na solo te lii ma ci wax yépp defe naa ni des na lu ëpp loolu lu ma waxagul bokk na ci aljanna bu ñu fay dugg ñun ñépp njàpp lañ fay duggee njàpp loolu nag dootul toj ba abadal abidin moo tax ñu lay wax ni aljanna dinga lekk lu la neex waaye doo fa dem toilette doo fa tuur ndox doo fa ngelawal doo fa am benn problème parce que lu tax mooy njàpp loolu suñu boroom may moom mooy continuer ak ñun léegi nag nga soog a ñëw ci mbokk yi su fekkonte ni nit dafa ñëw di jëflanteeg yow ci mbir mu mën a doon mbir mu ma mën a doon boo yaakaaree ni ay wor mën na caa am masalan tey mën naa la ci joxe exemple am nga sa kër bëgg koo liggéeylu wax ak ingénieur bi wala mason bi mu war a ñëw tracer batiment bi wala mu war a defar plan bi nga war a waxtaan ak moom ci wàllu devis bi naka lay doxee yan étape la koy def fondation bi kañ la koy tàmbali ba kañ lay yem kañ lay yëkkati élément euh, kii bi euh, euh, kii bi boo defee fondation pare élévation bi waa kay élévation bi fan lay yem état boobu ngay joxewaat xaalis nga soog a indi seenage yi indi dal bi yooyu yëpp ay étape la waaye gis nga bu waa ji ñëwee waxtaan war a waxtaan ak yow wala ngay dem ci moom di ko seeti bureau nga jàpp ba sell yóbbaale ko lépp lu ngeen waxante ba mu ba mu signé ko incha allahu taala du ca mën a wor dara du ca mën a teb bi dara noonu la koy toppee ba liggéey bi yegg maa la ko wax léeg-léeg nga dégg ku ne. man de sama waa dafa dem ba ci biir lekk sama xaalis sama bâtiment baa nga taxaw te bari na léegi wala damaa jox mécanicien bi sama oto joxoon ko xaalisu moteur tegaluma moteur nangam nangam bëri na wala employé bi dama ko wóolu jox ko sama alal pour mu war a dem verser ji banque ba mu dévier ko gis nga yooyu yëpp jamono bi ngay jox waa ji xaalis bi wala oto bi wala état bi nga jàpp ba sell soo ko joxee bu doon cent million la waa ji mënuñ cee dévier virgule dina ko yóbbu déposé ko na ko ko sant waaw yow mi nekk ci banque bi di liggéey mbaa nga nekk ci Senelec bi mbaa jeunesse mbaa nga nekk ci entreprise bu mën a doon ñuy ñëw di la fay xaalis am na ñoo xam ne xaalis mën nañ ci def loo xam ne bu ñu ko defee bu ñu la laajee sa kees mën nga ko vide joxe ko am na ñu bon ñuy def loolu di wër di nax nit ñi wala ñëw nuyu la nga gëlëm ñu laaj la sa kees nga vide kees gi jox leen ko yooyu yëpp charlatan yi ñoo koy def waaye yow bu fekkee da ngay liggéey war a dem kees wala nga dem banque ba. nga ñëw jàpp ba sell ñëw sa bureau toog boo tojalee boo tojalee sax dellu ci douche yi tëj sa biiro dem jàpp ñëw toogaat kenn mënul loolu ci yow waaw ku la nuyu nuyu yëpp naxaate du jàpp ku lay jéem a triande du jàpp luñ lay jéem a def du jàpp mbokk yi di wax ne daal lépp loo xam ne ab jullit mi ngi koy def bëgg yàlla musal ko ca dimbali ko ca man ne nay taqoo njàpp mbokk yi nag ñu ngi xamal ni ñamoon ci wàllu waxtu jeex na bëggoon nañoo dugg tey ci leçon première bi waaye il faut que rek ñu indi importance ba ngeen xam ne fi nu jëm mooy ci wàllu laab du rek pour jàpp rek jóg julli waaye jàpp dafa aju ci lépp lu doomu aadama war a def na ko ci dugal incha allahu taala bu ko ca defee rek ndam la cay am ndimbal yàlla la cay am waaye tamit xéewal la cay am incha allah mbokk yi ah ngeen àndoon ak seen mbokk seen xarit Oustaz Gora Diop fii ci seen rajo Rewmi FM wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu